bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen balu àq di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk ci àddina bi di ñu saytaan moo xam ci biir réew mi la ak ci bitim réew di am mbégte bu baax rek ñëwaat ci seen émission bi di émission gàggantiku nga xam ne émission la boo xam ne dañ ci labiré di ci ñëw di ci borom xam yi di leen taatan Eh, ay laaj yu jëm ci wàllu diine eh, ngir ñu ngi ciy gàggante wala bind boo xam ne laaj nañu gàggante ko ci <coughs> ñu ci ànd ak eh, alxaalimul allaama di sëriñ Mbàkke Abdourahman di borom xam-xam bu mag nekk fii ci Daaru Salaam Ndaam ñu ñëwaat fii ci këram ngir fas yéene àndaat ak moom jataay bi tey jii nag suñu émission tamit di jëm ci laaj yi nga xam ne ñëw na fii ngir ñu fas ci yéene tontu. kon bala ñuy wéyal suñu kàddu dañuy jox euh, sëriñ bi mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, aousubillahi min asheytan irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatu sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci ëttub xam-xam bi naa bu ñu siyaare Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa di nuyu it baax waa daairatu muqaddamatul xidma ci njiit al imam sëriñ Afi Bousso di leen nuyu ñëpp suñu sëriñ Abdul Xaadir ak mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi ak fu ñu mën a nekk uh-huh. di leen ñaanal jàmm ni nga ko waxee daayira muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk jumaa ji euh, seen seen bii di seen seen CMT TV euh, di leen defal émission bu am solo bii di gàggantiku ñu ngi nuyu baax sëriñ Abdou Khadir Bousso bi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak euh, maanam sëñ Fallou Sey ak euh, ñi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi yëpp euh, ku mel ne sëñ Ablaye Lo ñoom ak bokk yëpp di leen nuyu. sëriñ bi nag ginnaaw bi suñu émission bi jàll nga xam ne daanaka fan yi bëriwul waaye bokk yi fu ne la ñuy wootee ak yónnee ay message di yónnee ay ñaan ak i sant ak rafetlu liggéey bi di yónnee ay laaj tamit laaj yu bëri am na ñoo xam ne wooye nañu ba Siin ñi Dubaay ñii Malaisie ba ci biir Afrique rawatina Sénégal fu nekk rek ci góor ak jigéen ngir seen diine yitteel gum leen yitteel di yónnee ay ñaan ak i ak i ak i ak i sant yu bëree bëree bëree bëri tax na li ñu fi am ci laaj bëri na lool waaye mbokk yi nga xam ne ñoo yónnee laaj yi ñu xam ne ni ma leen koy waxee laaj yi e, ñun émission bii di Moukhaddamatoul Khidma di def ci seen seen mu Moukhaddamatoul Khidma TV ci YouTube wala Facebook Euh, wala euh, ci ngeen ko mën a amee loolu nag su ngeen ci abonné incha allah euh, maanaam gàggantiku bu ñëw da ngeen ci jot ci saasa mm-hmm. amaana nag ñu ngeen koy jot ci yeneeni support am na ñoo xam ne ñu ngi koy dugal ci TikTok wala ñu koy dugal ci groupe yi wala ñu koy dugal ci yeneen kii ñooñu dañ koy jëlee ci scène bi di ko dagg di ko di ko yaatalaat di ko di ko yaatal kon Euh, bu ngeen jàppee na dañ leen a war a tontu ci group wala dara déedéet tonté wuñ ci groupe maanaam ci scène bi la ñuy tontoo kon képp koo xam ne bëgg ngaa topp émission bi daal da dàkk scène bii di GMT loolu jaadu nañu leeral ko ngir mbokk yu bëri dañ dañu ci dañu ciy entrepré waaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom bokk yooyu yëpp euh, kon sëriñ bi ñu tàmbali liggéey bi bala ñoo tàmbali liggéey bi it ñu jox leen benn numéro téléphone ngir képp koo xam ne am laaj booy laaj nga jaarale ko ci muy 77 678 57 66 77 678 57 66 boo jaaralee sa laaju diine eh, sëriñ bi dana ci jot incha allah dana ci tontu. Eh, mbokk bi dafay laaj mu ne eh, ci asaka lay laaj moom mu ne asaka yi commerce maanaam commerçant bi nga xam ne daal dafa yor bitigam di war a génne asaka mu ne ndax bu éventé lay génne marchandise mi marchandise lay lay lay lay lay lay lay xayma. wala bénéfice bi lay xayma maanaam maanaam ci ci commerce bi mhm. waaw <coughs> wax ne moom ab commercant la maanaam mhm. day jaay bitig la yor léegi nag matériel matériel bi nga xam ne moom lay jaay hmm. dafa wax ne nisab ni mu koy nattee hmm. ci matériel bi la koy natt hmm. wala euh, daf koy natt ci monnaie bi monnaie bi mu yor maanaam xëy na xëy na bu fekkee daa jubloo xam nga nit ki bu dee commerçant boo xam ne li ñuy tuddee kuy wëndeel la du denc ci xaalis du deñ ci bagage marchandise day jaay lu jar mu jëndaat jaay kooku bi amee capital tàmbalee liggéey bis boobu lay takk ci weeru jullit yi saa bis ba delsee mu réglé xool li mu yor ci xaalis lépp mu teg ko ne xool bagage yi marchandise mii fi nekk mu xayma ko bu ko xayma nag li koy jaayee la koy xayma li muy jaay ci loolu xëy na bu yàggut am na ci ñu ci waxoon ñu bari di ci bàyyi ba kii bàyyi loo xel nit ñi ne doomu aadama buy génne asaka alalam lañ ko génneloo bari naa la lii amagut xamugut dana am bénéfice xamugut dana jaram déet kon li ñu ko jënde woon la déedéet maanaam fi mu nii tey sa alal ñaata la marchandise mi nga jii lu mu doon ndax mën naa yéeg mën naa wàcc masal tey lii boo ko jënde woon téeméer ginnaaw bi mu daan du jar juróom fukk boo ko xayma juróom fukk boo ko jëndee woon téeméer mu yéeg ba téeméer juróom fukk boo ko xayma téeméer juróom fukk nga ko xayma ndax boo boolee sa àll bëgg xam ñaata la fi ne loolu ngay xool a mën ngaa fii c'est plat boo ne yow marchandise la da nga ko jënd ngi di ko jaayaat uh-huh. daaw nga ko jëndee woon un million masalan uh-huh. waaye foofa kër yi yéeg na ba pàkk ba trois millions lay jar uh-huh. sa waxtu xayma asaka jot na nga am naa fay pàkk boo xam ne fi mu ne nii mën naa ci am trois millions kon pàkk dañ koy xayma bu dee commerce ak boo xam ne marchandise la nga xam ne jël ko fu bàyyi na ñoo xam ne seen marchandise ay pàcc la bokk ah, ay suuf lañ am mm-hmm. ku leen fay ñu jaay la ñooñu bu sa waxtu asaka jotee dañuy xayma pàcc yooyu mm-hmm. mais nag waaye nag njëg gi ñu la ñu ndax loolu mooy seen alal xam na nga tey ji pàcc bii mën naa am ñetti million kon am nga ñetti million mm-hmm. waaye boo ne million laa ko jëndee woon pàcc mën a jël ñetti million boo ko maa sa alal dëgg-dëgg génne woo ko doon bu ñu la wala exact sa alal ñaata la danga naan am na pàcc bu ne fee bu xam ne valeur mën na 3 fekk sa alal lañ bëgg nga xam ñaata la boo ko xamee nag ñu la asaka ji nangam lay doon moo tax nit ki xaalis li muy jaayee li muy jaar ci marché bi. loolu bis buy ah, buy buy xayma loolu lay xayma waaye bu mu xayma la ko jëndee ndax liy dëgg loolu sax tey bu fekkoon marchandise mu daanu la du wax mukk ne la ma ko jëndee woon laa koy xayma. kon bu yéegee it na bàyyi xel loolu maanaam daal li nga am tey lañ soxlaa xam. mu ne am naa fi ñetti million yoo xam ne xaalis la bagage yi fi nekk bu jaroon dara mat juróom million bu jaroon tey kon nga boole ko jot bu juróom-ñett man de diw amel na ma diw na ma xam naa dara mu fay ndax am na lu mu mën a fayee te it na ma un million da koy boole juróom yi ak ñett mu million nga xool nag yow ñaata kan nga kan nga mm-hmm. naa bor deux millions war naa ko fay génne ko ci li nga am la ca des mooy asaka kon waaye da nga asakaal juróom benn million boo koy asakaal nag boo ko divisé 40 lu mu la jox mooy nisaab moom mooy mooy asaka ji hmm. maanaam koy daal moom ci ci bon ci ci ci li muy jar ci waxtu bii ci waaw ah, waxtu bi ñu ko amee nga xayma li muy jar hmm. nga xam ne yow boo ko doon jaayee loolu nga koy jaayee hmm. loolu ngay loolu loolu euh, kon mbokk moom laaj boobu leer na kii mbokk mi dafay laaj mu ne euh, ndax bokk na ci ak maanu nga am ñaari soxna euh, yu nekk ci kër gi benn soxna bi amul ay doom benn soxna bi am ay doom nga yamale li nga leen di jox ci dépasse te moom mi ngi yor ay doomam ci biir kër gi mu ne ndax loolu def na ko tuddee maandu wala déet. sëñ Abdoulaye xam nga li ñu war a bàyyi xel mooy lislaam santaanewul yamale. Hmm. lislaam waxul na yamal de yamale fi lañ ñàkk a maandu tàmbale. Hmm. lislaam maandu la santaane. aati kulli di xaqin xaqahu. Hmm. kenn ku ne jox ko àqam. boo amoon ñaari soxna tey am ndaw kunda akub sant beneen sant <laughs> ndaw kunda bi moom ñaari kilo ko suur hmm. ñaari kilo nga ko war a jox kenn ki xaaju li war suur nag ñu lekk bu suur moo la war ci ñëw hmm. kenn ku ne fexeel ba jox ko loo xam ne mu dara ci lekk bu suur loolu moo la war ci moom hmm. bu dee code noonu kii ñetti mètre jot na ko kii mètre genn wàll jot na kenn ku jox ko ku jot loolu la islam santaan waxut soxna yooyu nañ maandu ci diggante soxna kenn ku ne boo ko waree wodd wodd ko boo ko waree dundal dundal ko kon lu lu ko matu dund lañ a jox xëy na asanda poosé lay wax ak gale xole yi hmm. la hmm. xam la la gàll ci saw loos moom ci sa waa kër mooy yi nga la ko gàll hmm. nga xam da nga am bàkkaar yi jëres la nit nag mën naa may ab xaritam wala ku mu gën a xaritool lu mu may kam xaritool loolu loolu bokkut ak li ñuy wax nii sa njaboot gi nga yilif nag mu say doom moom hmm. dañuy santaane boo leen di may nga may ñëpp hmm. am na ku ñëwoon ci Yonent bi salaam di ko seereel may kenn ci doomam mu ne ko ndax am nga yeneen doom mu ne ko ndax may ngeen mu ne ko dee ne ko man demal du ma seer ak jeng hmm. ci dégg ne ci dégg ne kon bu dee sa njaboot ay soxna yi nga am nga xam ne moom duñ laa sant nga dundal leen boo defee warte bu noppi lay dolli ko nag ay may yu dolli ko mën naa am ay aajo di ko waral xëy na kii da ko daa aajowoo lu kii aajowul bu la ñaanee nga may ko kii bu la ñaanee nga may ko ki la ñaanul mayoo loolu duñ ko tekki ne ak jàng la hmm. doon doonte doom yi mu am sax ci néeg bi day bëri ay soxla yu muy am xam nga doom yi yàlla war a dundal waaw ah, ah, moom seen bàyyi la war a dundal ah, seen bàyyi la war a dundal hmm. la war mooy ci dund seenum kodd seen bàyyi la war hmm. ni mu war a dundal seen yaay bu fekkee mooy soxnaa ma da ko war da ko war kenn ku nekk daa ma war a génn ngir waaw da ko war a génn ngir doom ñu génn ngir seen yaay kon ki ami doom ak ki amul doom danañ wute foofu ndax ki ami doom moom am na beneen dund boo ko war a jox ngir doom yi jërëjëf waaw euh, <clears throat> kii dafay laaj mu ne lan mooy atteb euh, borom kër bi nga xam ne dafa bàyyi soxnaam lu man ñetti weer nanguwut a jaxasoo ak moom maanaam nanguwu ko euh, jox ayam daal ci ci biir néegam mm-hmm. ndax ko loolu luy atteb borom kër boobu loolu di ak xam nga jaxasoo aqi soxna si da ca am mm-hmm. su ko mënta muñ sa nga dem ci yoon dañuy wax nga xam ne nit ki bu gëñoon taxaw waat ne du joteeg soxna si lu man ñeenti weer wala mm-hmm. ñu tudde ila soxna da ko yóbbu ci yoon bu ko neexee ñu wax góor gi mu dellu ginnaaw mbaa mu tas mbaa ñu tas oh. yu mel nii la ginnaaw dañuy wax ne laa darra wala daraar kenn loru kenn loree oh. kenn lore bu kenn loru day feeñ yëpp kon soxna si bu gisee ne kii kat lii àqama jum ko war jox am na ci borom xol sax dañoo wax naa la eh, nit ki gën jaa néew war naa jaaxaw soxna am donte benn yoon la ci ay bis dañ ko xool ci ne yore ñeenti soxna ku ne nga dagalu benn bis ay bés yi day mel mooy li gën a néew waaye nag day topp aajo yitam waaye bu fekkee da koo aajo woo te te góor gi amul ngànt bëgg koo xañ sañ naa dem ci yoon daan nañu jox ko ayam wala mu yewi ko hmm. su soxna si mënee muñ nag ngir yàlla it xëy na aajo wu ko wala loru wu ca loolu mbiram waaye ko góor kii war dana ci am bakkaar wala du ci am bakkaar ah, bu fekkee ne àqama ju ngi ko joxul kay bakkaar ci nekk hmm. ndax da koo xañ àqam ci lu ngànt hmm. Euh, kii tamit euh, laaj bi xaw naa niru loolu mu ne lan mooy atteb ki nga xam ne dafay dund ci néegu sëy ak wujjam léegi nag wujj yi moom yàlla dogal na du togg du fóot du paase waaye daal du ko bàyyee maanaam lal bi daal maanaam moom moom moom nanguwut a participer ci togg gi ak liggéeyu kër gi waaye fanaan bi moom foo su ko yéenee bàyyee wujjam woowu te te wujjam yi moom méngoo li ci des alors di xam nga ñu waxtaan bi dégg na bu fekkee nangu na ko hmm. naa féetewoo yëpp ndax yooyu noonu euh, ca dëgg-dëgg ñun ni ñuy dundee nii ak mbaax a ngi ci koo xam ne jigéen ñi ñoo ko baax. Mm-hmm. waaye li jaadu woon dëgg-dëgg ku yor ñaari soxna. Mm-hmm. kenn ku ne nga beral ko lépp. ndax soxna soo ñu wax bu fekkoonte ne këram la ne. Mm-hmm. jox ko njëlam bu bëggee xewlu bu bëggee dund dana dana togg. kon daa nekk barab ñu koy toggaale waaye li doon cosaan tey baax boo amee ay soxna donte da leen boole ci benn kër duñ bokk appartement. kenn ku ne néegam daa war a ak lépp. lu mooy cosaan day ànd ak wanagam ànd ak waañam nga di jox dépassam tey jii ñu bari ci yeneen uh, jinsi yaay yeneen xeet yi ki jëfee ñaari soxna ñaari kër lay doon. Mm-hmm. waaye ñun ni ñuy def fii moom soxna yu baax yi lañ am moo tax ñu nangu ko waaye. Ah, xam nga wolof yi fii ñu bari dañuy jàpp ne suñ jëlul njël rek waruñoo am ay. xëy na loolu loolu la ah, jublu aada ji lay dellu xam nga ah. bàyyil xel ne li muy wax noonu man la jël njël mi. Mm. yow boo nekkee ci kër. liñ la ameel sa borom kër mooy jox la nga togg lekk mhm. léegi nag bu la joxoon sa dépasse boo ko togg da nga wuti kooku togg mhm. bu fekkee da am ci kër gi nag koo xam ne nangu naa gàddu loolu moom nangu naa toggal boo xam toggaleel mhm. loolu mbir waaye su ko gàntu woon ne nag duma ko toggaleel waaw faaw boo di ko war lijjanti ñu ay ayaloo wala kenn ku dem bari la jox la sa njël waaye jotewut ak moom moom jotewut ay jotewut ndax nag ne sagam kii toggul kii rek ci kii rek laay jox ay déedéet sañu ko sañu ko sañ na ne ko daal lii la warte wartee fii demal defal yëpp waaye nag xaañ nga lii kon dama lay xañ lii lor kenn du ko fajalam lor dee su fajalam waaw xam naa moom xëy na boo yeexee xeet yi ñu topp seen bakkan nga xam ne léeg-léeg benn soxna boo xam ne eh, dañ koy jële fenn indi ko rek nga xam moom du du togg du def dara waaye teewul la moom euh, <laughs> li ko war a loolu day day jiñ la xëy fi mbokk mi xam naa lu mel noonu kaas booy yonent yàlla Muhammad waxoon alayhi salaam ne ah. ne am ku ci yor ñaari soxna te maanu woo seen diggante hmm. bu yowoon xam booy dekki da ngay paralysé ak wat gu jàngee wax waat ah, loolu moo tax moytu la moom delu wooyu lay la hmm. diggante sit nag day yàq ak njaboot ay nit ñu war a dégg war a ci jàmm hmm. nga faral kenn ki ba mu juwoo ak noonoo di jeexite seen njaboot loolu lu ko jar ci àdduna amu fi lu ko jar amu fi jërëjëf euh, mbokk mi mu ne lan ngay laabiire mbokk mi nga xam ne dafay dund ci réew moo xam ne duñu ay jullit maanaam ndax dana dagan ci jullit bi muy lekk seenub rendi li ñu rendi ñoom euh, nit ñooñu nga xam ne duñ ay jullit waaw bu dee ahlu kitaab la day borom bi moo waxoon ne wa taamu alladina utul kitaaba xillun lakum hmm. ahlu kitaab moom seenu ñam dagan allahuma loo fekk bañ koy rendi te nañ ko rendi baaxul loolu la bu doon ab jullit doog sañ lekk bu fekkoon iblit di rendi aw nag jur bëgg mu dee doog lekk hmm. waaye lu amul yàqin ci ne nañ ko def baaxul rek ñamu ahlul kitaab dagan bu dee ay yéefar lañ nag moom ay mulxidoon masal ñu weddi amul yàlla ñooñu deesul lakk seen redd du ñu weddi mettal ahlul kitaab daal mooy chrétien yi ak juif yi waaw xam ne ñoom gëm nañ am na diine juñ gëm wante diine ji yàlla nangutu ko waaye nag l'islam moo mayee hmm. ñooñu seen ren nañu jëflante ñoom ci loolu ñu lekk seen ñam waaw bu dee nag du du rende nga xam ne ay ceeb laak ay papa yooyu moom loolu yéefar beeg te ñëpp ci xanaa ñu toggee ko togg ba toggee ko sàngara wala yu mel noonu hmm. bu dee ceeb mel ni mii ceebu jën mii la moom ab julit wala chrétien wala yéefar togg ko ñëwee hmm. loolu ci taat bu xiifee mën nga ca xew hmm. jërëjëf eh, mbokk mi la moom laajam bi sax dafa dafa dafa dafa xaw a kaas ci yéen imaam yi ak waxtaankat yi borom xam-xam yi nee na daal dafa gis na daal moom li ngeen di waxtaan ci doom aqi aqi waajur ci doom moo gën a bari ci li ngeen di waxtaan ci aqi doom ci waajur maanaa daal eh, dafa mel ne li ngeen di dal gone yi daal ne di respecté leen si waajur dafa am aq loolu looloo gis moo gën a bari bëri li tax muy wax loolu moom moom gis na ne juróomi at a ngi nii mu bëgg soxna di ko wax ay waajuram ñu di ko danxamtalu te moom soxla na ko te ndax loolu nag moom aq aq ju ko waajuram yoreel la te loolu kon war ngeen ciy wax ngir ñu xam ne tamit ñoom waajur yi amel nañ àq doom yi ndax maa ngi maa ngi am juróomi at boo wax léegi ma bëgg a takk soxna duñ ma wax lu leer te man munu ma munu ma leen a bët léegi nu mooy def waaw <laughs> ah, xam na nag am na tuuti njuumte ci lim jàpp xëy na moom moo am soxla <laughs> tax mu bëgg a jàpp ne dañoo dañoo sàggan ci soxla <laughs> waaye ñaare fu ñuy waxtaanee ay àq ñaare yëpp la ñuy boole waaw li way jur ameel ay doomam ak li doom ameel ay way jur sax yàgg na def ko waxtaan mel noonu ci ramadan ci koor gi waaw ah, yooyu yëpp moom luñ baaxoo di waxtaane la mhm. li mu bëgg a wax nii nag moom na bàyyi xel ne takkal ko soxna warul bàyyam mhm. mën na ko caa dimbale nag mën na ko jàppale sallallahu alayhi wa sallam man istataa minkumul baata falyatazawaj jox gi ndigal dafa mel ne xalaat sax moom de yu desam daa ku ci mën a takk soxna demal takki soxna loolu ndigal la moo ndigalu yàlla lànkee nag waaw ndigalu yàlla hmm. daa am yoo xam ne sëñ Tuubaa jàngal na ko nee na farata di hmm. jër dee su ci laaj ndigal jëru laaj ndigal hmm. jot nga ndigal ba noppi tisbaar da jot na damay julli jëru takk soxna jot na ci yow xam nga ne boo takk soxna mën ngaa mooy yàlla am nga loo takke damay yëgal te bàyyi nag damay takk loolu farata la xam foofu takk soxna ngir fekk boobu farata la loolu jëru tàggu mu nga ci yégale nag ngir jàpp ci ànd ci ak ñaanal la doxal la waaye jëru tàggu bu fekkee na daa jàpp ne ma ay waajur ñoo ko war a takkal moom ñooy hmm. waru leen mën nañ ko jàppale aada ju rafet la it nag soo amee doom nga yar ko takkal ko soxna jàppale ko ay du warte moom daal li ko war mooy mu liggéey ba am lu mu takke soxna su waxee waajur waajur ju ndax xam talu hmm. sañ naa dem takk te du ci am ndax moom takkum hmm. soxna euh, moom mën naa demal boppam buñ ñaanee ñu may ko mën naa yebal kooku neex sartuñ ci bàyyi maanaam jigéen lañ wax ne way juróom moo koy may kilifaam waaye góor moom ku ko neex mën naa yebal jigéen ñi nga xam ne sax dafa sëy mën naa yebal jigéen mu ñaanal kon foofu du ne eh, ñoom ñoo ko tey takk soxna hmm. bu fekkee da amagut doole nag bëgg ñoom ñu takkal ko moom loolu na neex neexa masla neex deret bu ko dee mën ko takkal yoonal kooku bañu mën a beru loolu nag lu baax la ndax way jur war nga bàyyi xel ne fii bokk na ci aada yu rafet yi ñu am ñun mag ñi dañ daan wax kër gune ci kër lay juddoo kër gune ci lay juddoo hmm. Euh, ndawle suñ ko yaree jàngal ko ba nat tak soxna jot ñu dimbalee ko takkal ko soxna ba noppi dimbalee ko yaral ko ci kër gi ñi ñi ñi jug di jàng nu ñu yore kër bu ñu dëgër bu ñu deru seen kër fekk na am nañ xibrab expérience nu ñu yoree soxna xuloo nañ ba tey waat kenn ku ne xam sa morom xam fa nga xam ne fa nga a bu ñu beroo seen kër bopp du doon ay jafe-jafe waaye fi ne bari na sëy yi tas koo xam ne daa dem tabax këram jë takk soxna yóbbu benn expérience ci soxna gir bu gàtt ñu xuloo kenn néewu fu ku leen atte wala ku leen taxaw xëy yooyu mm-hmm. mag ñi daa dañ ko daa dañ ko moytu loolu nag baax na waaye nag déwén farata joo xam ne ñaa a yaa ko war a takkal soxna. Mm-hmm. ku ci am soxna ku ci am baa maanaam mu am man man mën a takk soxna dama nga takk soxna soo ko mënul na nga bari lay woor. Mm-hmm. ngir mu xaw a xaw laa wàññi ba doo doo doo. waajur yi lan kay lu neexee nga. waaw moom moom bu xasee xam na yow mii takk soxna jot na ci yow xam nga ne aajowoo nga ko te man nga ko mm. loolu farata yàlla la nga takk soxna mm. farata nag sëriñ bi noon nañu jërul tàggoo ndax jot nga ndigal ko nag mm. mën ngaa yéglu nag ndax yëglu yi ñoom lu ñu baaxoo def ñoo koy dox waaw loolu it nag jàpp naa ne waajur wenn nit du ne man de damaa bëgg soxna mën naa koo takk waajur nag dafa takk soxna ndax loolu moom danse ba ci nekk mooy bu bu bu ngóor si demee dugg ci mbooy gi lu mu fa def way jur am na ci wàll ndax moo moo dox diggam ak uh, kii te xam boobu daa waxoon ne qu anfusakum wa ahlikum naara mm-hmm. fegal leen seen bopp ak seen njaboot sawara kon sa sa njaboot bu dikkee bëgg a takk soxna am lu mu ca man bu mën lépp sax dimbale ko ndax da koy fegal lor ndax bu tëkkut róor mm-hmm. te bu róoree ñu mbugal ko te buñ ko mbugalee yow mi ko sàggan yow mi sàggan moom róor dañ mën naa ñu mbugalaal macha allah xam nga tontu moom dana tax mu mu bégloo ko moom sax parce muy doon <laughs> kaas ci yenn <laughs> yenn waxtaan yi bëgg daal ñuy waxtaanee àqi doom yi. Mhm. Euh, mbokk bi dafay laaj mu ne euh, euh, moom nee na jigéen la dafa dafa yàlla dafa dogal nag mu bëgg julli lool ba sax waa këram dañ ko ci tooñ ci fonk gi mu julli waaye nee na julli ajjuma da koo waru mooy ndax su fekkee ne julli ajjuma waru ko buñ noddee noddu gu njëkk rek mën naa julli tusbaar wala day bàyyi ba imaam sëlmal ajjuma mu doo a julli tusbaar. moom soxna mhm. si képp koo xam ne ajjuma warut ko bu tisbaar jotee mën naa julli tisbaar ñi wax nañ bàyyi ba julli ba nag mooy ñi nga xam ne dañoo am ngànt mhm. te am yaakaar ne mën naa am ngànt la tegi kooku dañuy bàyyi bañ julli ba sëmal ba nga xam ne ngànt la teg kuur mu julli tisbaar mhm. ndax ci diggante bi su ngànt la teg koon daa war a julli moom nag ajjuma waru ko kon moom jërul muy xaar ba jërul muy foo waxtu waxasee jër mën na noonu rek mën naa julli tisbaar mm. jërëjëf mbokk bi dafa laaj mu ne ki nga xam ne te fekk na bi mu koy fase moom ci laab la ko fase waaye neen dañ caa teg euh, ay weer euh, gis ne soxna si ëmb na mu ne ndax day day day jàppandi ci moom mu mu mu dellu ginnaaw ci fase bi walla day néggandiku ba ëmb bi noppi waaw xam nga fase moom bu ko defee hmm. dañuy xool fasem fasem lan hmm. bu dee fasem payli la feeg idda ja jeexut sañ na ko fay di mhm. mooy bañoon la ko fase yéen ci manifesté mhm. kon feeg idda ja jeexut saa yu ko neexee ne ko maa waxoon génn mhm. li ma la waxoon génn naa ci day dellu siwaat nekk soxna moo xam na ca moo ki way juróom wala anduñ ci bu dee fase mi nga xam ne dafa nekk ba in fase la ñoo mu facc fase la moo xam ne moom mu nanguwul fay de waaye nangu na takkaat na nangu na comme moo ko moo ko fase woon bëgg ko takkaat moom man na ci biir idda ji mën na ko ci takkaat waaye day jox waat kenn ñu mayaat ko bu dee fasam batta nag nga xam ne mën na ñetti yoon moo bii mooy ñetteel bi wala benn baat la wax jublu ci ñetti fase mm-hmm. su waaye moom ba mu ko xasee fase jeex na faaw iddaam jeex mu sëyi feneen ba tas moom nag ginnaaw daa ëmb iddaam mooy mu am doom mm-hmm. yéen ñu ci wax yëpp fii amul doom idda jeexul mm-hmm. waaye fase mi dana tàbbi moom fase bi tàbbi na mu ko defee bu mu ko defee la tàbbi jërëjëf euh, kii dafay laaj mu ne lan mooy salaatu tasbix salaatu tasbix di ak julli la goo xam ne naafila goo xam ne xadis bari saxal na ko mhm. génn julli la goo xam ne nit ki dana ci sàbbaal yàlla juróom-ñaar fukki yoon ak juróom ci rakka bu ne mhm. wala boog mhm. euh, waaw bu noppee lépp ñett téeméer lay doon ci ñeent rakkaay day jàng faatiha ku saar wax subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illallah amu ci yokk laa hawla wala quwwata illa billah loolu wax fukki yoon ak juróom bu jàngee fàttee ko saar bala sëgg bu rukkooyee wax subhanallah yi ma wax ba noppi waxaat yooyu ma wax léegi fukki yoon bu siggee taxaw wax sami'allaahu liman hamidah ko fukki yoon bu yi ma wax bu noppee wax yi ñu wax ni léegi alham subhanallah alhamdulillah allaahu akbar laa ilaaha yokk ci wala xawla quwwata illaa billaah fukki yoon bu siggee toog wax ko fukki yoon sujjootaat wax ko fukki yoon siggiwaat toog wax ko fukki yoon dara jóg nga xam ne rakka bu ne dana mat juróom-ñaar fukki yoon ak juróom ndax bi mu jeexalee wax na ko fukki yoon ak juróom mhm. fukk ak juróom siggi fukk ak mhm. bu njëkk fukk ak toog fukk fukk yëpp fukk la bëgg mhm. benn moo ci fukk ak juróom mooy bi mu jeexalee fàtte ak ko saar te rukoogul bu sëggee def ko fukk siggi fukk ci bu njëkk fukk siggi fukk sujjootaat fukk siggiwaat fukk juróom benn fukk ak fukk ak juróom ñu njëkki woon loolu lay def ñeenti rakka yoo xam ne mën naa doon benn sëlmal mën naa doon ñaari sëlmal la julli ñaari rakka sëlmal ñaari ak sama loolu la ñuy suy salaat tasbih adécër mooy ku ko def ku ko man benn yoon ci dund wala at mu ne wala weer wu ne wala ay bis gu ne wala bis bu ne macha allah yu moo ci nekk baarakallah mbokk bi dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci ki nga xam ne dafa yeewu gannaaw jullik suba waaye fekk jant bi fenkut ndax dafay julli fajar doo ko julli suba wala wala day dem ah, bu fekkee ne mën naa julli fajar dugal fa suba am bañ a rakka suba te jantu fenk hmm. kon ba tey jeexagul waaye bu fekkee nag benn rakka xaju fa kon day julli suba bàyyi ba jant fenk ba jóg ba naafila dagan mu fay fajar hmm. ki nga xam ne dafa yeewu moom fekk jant bi génn moom day julli fajar ba noppi doo ko julli suba day fay suba muy farata hmm. bu naa daganee la fa ñaar ak fajar. Hmm. waaye moom mu faj. farata la war a njëkk a julli ba noppi hmm. mbokk mi dafay wax ne euh, dafay laaj ne ndax dana dagan ci jullit bi maanaam ci mu jeexal taaya euh, ci taaya ju njëkk ji maanaa taaya yi sëlmal mu yamale ko ci habduhu wa rasuluhu te du dem ba àgg ci hamidun majid waaw xam nga taaya moom taaya ju mujj. Hmm. dañ caa sopp salaatu ala nabi sopp ca ñaan moom bu ko defatit bàyyi lu ñu sopp salaatu ala nabi sax sunna la waaye nag du waral sujjoot sunna bu woyof la day benn la ci bàyyi waaye nag li gën moom mooy taay yu mujj day sut taay yu njëkk li tax mu di ko sut mooy day am salaatu ala nabi amul ñaan te taay yu njëkk amul loolu kon su ko bàyyi woon it lu tey ji leen baax na moom waaye xañ na boppam ab yow moom jërëjëf kii mu ne dafay laaj lan mooy atteb ki nga xam ne dafa sëlmal ci julli ñeenti rakka mu sëlmal ci ñetteel bi eh, ngir juum maanaam léegi nan lay def moom bu sëlmalee ngir juum day jóg kabaraat mhm. àggale julli gi su jóot banda salaam mhm. bu fekkee yàggut bu nag jàkka ji génn ba këram boo julli gi mhm. wax ne saabu bu fekkoon sëlmalul moom day jóg rek àggale bu sëlmalee ci saasa fàttali ko ne julli gi matut wala mu sëlmal ñu ne ko subhanallah moo xam ne matut day jóg waaye bu jógee mm-hmm. na ci julli gi day yéene war tàbbiwaat ci julli mm-hmm. mottali li ko dese woon su ko defee mbokk mi dafay laaj mu ne ki nga xam ne ay julli yu bëri daf koo faat mm. julli yu bëree bëri maanaam ndax lay nan nan lay def moom ndax fay ko day da koy war maanaam daal lim bi daal xamu ko li ko faat ci julli ndax dana war ci moom mu fay ko wala de waaw day war ci moom mu fay ko mm. naa fay ba xelam dal fay ba la ñuy wax naan fekkoonte ne bis bu set day julli julli juróomi fan mm-hmm. masal moom daal bu bu jullee tisbaar tey. Mhm. day julli yeneen juróomi tisbaar bu jullee takkusaan. Mhm. fay juróomi takkusaan. Mhm. nga xam ne bis bu ne am na juróomi fan. kooku bu dee juróomi at la woon ba may na. ci misaal après ne gën xam ne daal am na juróomi at yoo xam ne julliwuma. léegi na def ba sëb mu julli juróomi julli bu defee at day am boru juróomi at. day mel ne boru juróomi at man boole ci nag tuub jéggul boromam. jërëjëf ki mbokk mi dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafa fase soxnaam euh, maanaam fase ko pasam ñett léegi ginnaaw bi mu am mu am beneen soxna beneen beneen boroom kër bu ko bu ko bu ko tontu maanaam ndax kooku dafay kooku fasawaat ko <laughs> ñetti yoon moom li muy wax dafa jaxaso mu ne ndax léegi dafay dabaatal euh, fase bu njëkk ba waaw dafa fasa soxna eh, ñetti yoon dafa ak moom baax da saw ji hmm. walbati ko fasawaat ko yeneen ñetti yoon ndax day defaat ak moom baax da ji loolu ah, lay laajoo ah li mu bëgg wax mooy bu fekkee dafa fas soxnaam ñetti yoon xam nga du ko sañ a lu ñu baax da saw ji hmm. bu nag ak ak buum gu yees la hmm. buum gu yees la maanaam ñett yu njëkk ya comme jeexoon na ba mu baax da loolu jeex na mu léegi nag fi mu nii amaan na soxna ak ñetti buum yu mat mhm. bu ko wàccee benn yoon mën na ko mhm. bu ko wàccee ñaar yoon mën na ko takkaat mhm. bu ko wàccaatee ñetteelu yoon nag ba te balatoo yi des waat moom daal moom mu ko jëkkee takk ñett wàcc ko ñetti yoon balatoo jaar na fa mu takkaat pas-pas bu yees la bu ko wàccoon benn yoon duñ li ma te yu njëkkee ndax loolu na waaye da jàpp ne wàcc na soxnaam benn yoon bu ñaaree ñu ne wàcc la ko ñaar bu ñettee ñu ne ko ah, taxaw fi ne mënoo koo takkaat lu dul ba ànd jërëjëf euh, mbokk mi dafay laaj mu ne lan mooy àtte euh, xam naa ne euh, laaj bi mooy doon suñu suñu laaj bu mujj bu ko defee ñu ñu yamale kii bi foofu kii dafay laaj mu ne ndax dana dagan ci jullit bi muy liggéey waxoon nañ ko léegi nii mooy laaj bi ñu laajoon léegi rek ci barab boo xam ne dañ fay jaay yàpp mbaam xuux ndax moo xiin séer ndax dana dagan ci ab jullit jaay yàpp mbaam xuux daganul mm-hmm. ndax lekk ko dagan dimbalante ci bàkkaar la te dimbalante ci bàkkaar dagan jërëjëf sëriñ bi xam naa ñu jox la kàddu gi nga tàggatoo mel ne li ñu cërale woon ci waxtu jeex na jërëjëf sëriñ Abdoulaye ñu ngi di nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu jotaay bi yëpp di ñaanal di ñaan yàlla eh, jariñ ci li ñuy def lépp mm. barkeel yëngu yi te liñ ci séenu ci njariñ jot di rafet lu baax it nag mbokk yi yittewoo jataay yi ak yittewoo laaj mhm. ndax am na solo ci ab julit ñu bàyyi xel diineem mhm. bàyyi xel diineem ndax diine yi kenn du ko làmb mhm. lu ci nga xamul day laaj yàlla kenn du ko jaamu ci làmb am na solo yàlla yàlla barkeel ñëpp ñu ngi ñëpp den siyaare asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullah jasakallahu xayran eh, sëriñ Mbacke Abdourahmane Euh, ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom defal tawféex ak taysiir te gën a yaatal sa dënn ba ni nga tabee ci joxe xam-xam ak laabire bokk jullit yi ci seen diine suñu borom gën laa kattanal ba nga gën koo man ñu ngi sant it yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ñoom ñëpp di leen xamal ne laaj yi li ci des bëri na lool képp koo xam ne déggoo sab laaj mën nga koo taaxirlu ci seen bi di MKTV wala GMT TV seenu Moukhaddamatoul Khidma TV wala Grande Mosquée de Touba TV incha allah laaj yëpp dañ leen tontu waaye nag euh, euh, waxtu nekk ak liñ ko cëral kon su ko defee ñu bañ a yàkkam te topp ko foofu rek danañ danañ gis seeni i seen i tontu incha allah ñu ngi sant bu baax sëñ Abdou Khadir Bousso mi réalisé émission bi ak sëñ euh, Fallou ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ñëpp di leen dig daje incha allah ci seen beneen jataay jataay boobu it nag képp ku ci bëgg a def ab laaj tamit rek mën ngaa wootee wala nga yónnee message WhatsApp 77. 678 57 66 su ko defee sëriñ bi dana jot ci laaj bi dana ci tontu ñu ngi leen di dig daje ci beneen jataay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh